mbokk yi moo ngi noonu comme ni ngeen ko déggee Cheikh Yerim Seck kàddu yi nga xam ne nag yëkkati na ko mooy que ne nag moom jàpp na ne gisul benn doomu aadama fii daal si Sénégal boo xam ne daal dina tax mu mu war a wax mu dina ko tere mu wax li mu bëgg a wax waaye tamit bu kenn xaar mu ànd ak premier ministre Ousmane Sonko maanaam gouvernement bu bees bi daal benn sénégalais xaar mu ànd ak ñoom liggéey moom Cheikh Yerim Seck kàddu yi ne mel la daal di yëkkati waaye tamit di xam ne que ne moom. li xewoon moom dootul xewat moom maanaam daal jàpp gi ñu ko jàpp ak li ñu jot a def moom jàpp na mbir moom dootul xewat yi moom Serigne Seck mu nekk yoo xam ne daal na ko yëkkati waaye dégg ngeen Sandiougu mu nekk kuy def ay analyse yu amaam solo waaye ay jàngat yoo xam ne da koy faral di def si seen émission bi nga xam ne nag moom la ñuy amal fële sa solution TV mu nekk ay jàngat yu amaam solo yoo xam ne Sandiougu daan na koy def si sortie bi nga xam ne Serigne Seck sorti na ko ni que ne nag comme ni mu wax rek moom Serigne Seck. maanaam dafa nekk si démb ba léegi te gars yi nag dafa mel ni jamono bi weesu nañ démb instant bi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi feneen waaye moom mu Seck boo xoolee ba léegi moom dafay nekk fa mu nekkoon ba léegi te loolu moom sénégalais jamono bi dafa mel nag daan nañ koy weesu